اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا كل ما جهلنا وأقرب وقل جاء الحق وظهق الباطل إن الباطل كان ظهوقا نجل نزار أبو بعض خباق سنبكم دار محمد الفاجب مو فسيني نيوتاي عند أجين تزن دار سبو خم يدين كتو دي جانجل انده غرب بي موم أي بورا محمد خم رجنيا في نك خنا كاي دي وخني نفا عند أجين نفا رانته لنجانجون كدار جنجير موكي دار يفي نك déglu ñu ñu nafar lenn ci li ñu jàngoon ca daara ja bu ko defee lu ciy njuumte rek mbokk yi mën ñu cee kii ndax ñun ay dongalim ci seen biir ñi ngi dogal ngant bépp borom xam-xam bu nekk ci groupe bi ak bépp jàngkat bu nekk ci groupe bi parce que yéene rek ànd ak yéen nafar li ñu jàngoon seen kanam bu ko defee incha allahu rabbi lu ngeen ñu cee gàggante ngeen gàggante ñu ko ci kàttanu yàlla dañoo bëggoon nag nafar ak yéen li ñu jàngoon tuuri ci almul usul waaye nag ñu ni woon balaa ñuy dal benn téere usul dañoo bëgg a def benn tamhid wala benn laytaay ci wala benn muqaddam muqad mm, rek ci téere bi nga xam ni téere la boo xam ne xëy na du dëgg-dëgg usul waaye dafay téere bu gàtt bu am solo boo xam ni ci furoox la sax mën nañu ci fiq waaye téere bu gàtt la waaye bu tënku boo xam ni képp koo xam ni xëy na jàngoon nga ko boo ko nafaraatee wala jàngoo ko woon nga jàng ko dana la am ay masala yoo xam ni xëy na leerul woon ci sa bopp waaye dina leer ci sa bopp bu ko defee bu ñu paree ci téere bi nga xam ne bu gàtt la ndax bu ñu xoolee téere bi weesuwul fanweeri bayit ak ñett donte bayit yi nag làmb na ay maxnaa yu baree bari boo ko rek bu yàlla dogalee nga mokkal ko nag mu gën a rafetali bu ko defee boo dalee ci usul dana am solo lool donte dana ci laal ay masalay usul waaye bariwu ci téere bi ci furon lay lay gën a wax waaye nag téere bi day téere bu am solo moo tax ñu bëggoon ko daleat incha allah téere bi nga xam ne nag moom lañ bëggoon a dale téere bi mu ngi tudd na nazmu nazairi risaala ñu saraa ko tuddee ko taxrirul maqaala fi shari nazairi risaala ki nga xam ne nag moo bind téere bi moom xani yun ani taxrif borom xam la boo xam ne bu siiw siiw la bu ñëpp xam ñu koy tuddee ibnu xaazin moom nag boroom xam-xam la boo xam ni xëy na danañ wax ci moom tuuti rek ndax ñu bari xam nañ ko boroom xam la bu mag a mag boo xam ni siiw na lool ci fànni xam-xam téere bi nag ngi ko liggéey ci rek euh, leeral yenn muskila yi nga xam ni moo nekk ci risaala risaala nag boo xam ni ñu ngi ko bind ci fiqi mazhabu imam malik muy téere boo xam ni boroom xam xam islam yitte woon nañ ko lool ci di ko saraa ak di ko way ak di ci def ay ansia liggéey boo ama am solo daal boo xam ni boroom xam-xam yi nekk ci mazhabu imam malik def nañ ko ci téere bi loolu nag bokk na ci lii nga xam ni moom la Ibnu Xaasin def muy leeral yi nga xam ni ay muskila la ay ci ci téere bi nga xam ni mooy risaala waaye yemul ci loolu dafa tudd am na am na dafa tudd loolu rek waaye am na ci biiri masala yoo am am solo yoo xam ni ak ay istilaaxaat yoo xam ni borom risaala dina ko jëfandikoo mu leeral ko ci téereem bu gàtt bi donte gàtt na lool waaye mu leeral la muy njëkk nag mooy muskilaat yi nga xam ni am na ci bi yoo xam ni xëy na borom risaala wax na ko mu am ci xel yoo xam ne lënt na ci ñoom ci yoo xam ne daal xëy na lënt na ci ñenn ñi donte am na ci boo xam ne ko leeral waaye mu tudd muskila yooyu leeral ko bu paree ci loolu ci bayit yu gàtt dana jàll ci yeneen bayit yoo xam ne ay istilaax yoo xam ne borom risaala jëfandikoo na ko lu mel ne yambax yi ak nangam ci waaye ni mu ko jëfandikoo dafa xaw a am am lënt xay na bu buñ la ko leeralul doo ko xam moom itam mu leeral loolu bu paree ci loolu dana ci am ay masala yoo xam ne ni rek ci mu ngi ci biir risaala waaye mu tënk ko ci tënk bu gàtt boo xam ne yow boo ko mokkalee ci bayit yooyu di nga ko xam la nga xam ni moo ci leerul wala moo ci xaw a lënt ci ki nga xam ne jàng na risaala rek romb noonu xam ko mu indi ko loolu daal ci gàttal muy téere bi téere bi nag taxu ko gudd waaye borom xam ni saraa nañ ko ku mel ne xattaab saraan na ko ci saraa boo xam ni yaatu yaatalul lool lool waaye teewul dem na ci ba saraa bi lu muy ñàkk yaatu ñaata yaatu mën na ñett xëy na xaw naa jege ñett téeméeri paas kon muy saraa bu am solo comme nag tey mooy bis bi nga xam ne xëy na moom la ñuy ubbi bi xëy dinañ def benn kii bu gàtt rek xamle kan mooy naazim bi muy ibnu Gazin kooku nag mi ngi tudd Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Gazi al Xufmaani al Miknaasi al fasi boroom xam-xam la nag bokk ci boroom xam-xam yi mag nga xam ni dafa géeju ci fànn yu bare bëri mën nañoo tudd ni boroom xam-xam yi dañuy wax dañuy wax ni moom muhaddis la waaye muarrix la waaye faqix la waaye fardi la waaye harudi la tamit waye tamit nahwi la muy boroxam bu mag bo xam dal fan yu bare bare geejju na ci muy boroxam bo xam ni ñëpp xam nañ ko mu bind it ci fiqh bind ci fan yi wax yeb bu re ci fiqh rek doyna ko ndam ci ashiya bi mu def ci مختصر الشيخ قليل ñu di ko الخليل في في fi مختصر المختصر الشيخ قليل في الفروع مو mu andi ca mu leeral te yu ama am solo nag yoo xam في في na xëy na ci ci ci ci muxtasaru Cheikh Xalil am na benn asiya tamit bu mu def ci alfiyat ibnu malik asiya bu leer a leer te am solo andi ci yu am solo andi ay bayit yoo xam ne lëntoon na ci ci ci ci ci xëy na ci alfiyat ibnu malik ci ko jàngoon def na ci ab asiya andi ci lu leer a leer leer moom nag ibnu xaasim yi ñuy wax bind na ci fànn yu bëree bari ndax bind na ci xiraa siiw na ci ñu bëree bari xam nañ ko bind na it ci histoire bind na daal ci ci ngir bañ a guddal rek tarjama bi bind na ci xeeti xam-xam yu bare bëri tudd nañ ko léegi nee def na benn enché bu ama am solo ci alfiyatu ibnu Maalik nga xam ni képp kuy jàng alfiya da nga koy yittewoo ndax bayit yi nga xam ne moo ca nekk taxawal lënt wala ta fasu yii da ko wayaat andi ci ay jubbanti yu ama am solo bu ñu tudd nañ rek léegi benn téere bu mu def ci Shifaaul Xalil bi ñu wax fii an li muxtasari muxtasari Cheikh Xalil tudd am na it bind na it ci xiraan comme ni ñu ko waxee léegi bind na ci taarix kon daal bind na ci fànn yu bëree bëri comme daal si bañ a guddal rek borom xam-xam ne bu mag a mag boo xam ne borom xam yëpp bàyyi nañ ko xel ay mbindam tasaaroo na moom nag mi ngi mi ngi faatu ci mën nañu wax ci dixième siècle maanaam mi ngi faatu ci jamono jooju ci ci ci milaadi yi ci neuf cent dix-neuf ngi judd yi tamit ci huit cent quarante et àllarba ci jumaatal ula muy borom xam bu mag a mag yàlla ko yàlla yërëm ci gàttal ci tënk rek ngir bañ guddal xëy na loolu la ñuy andi ci moom ay ki nga xam ne nag moo sara téere muy mi nga xam ne moom ñëpp xam nañ ko mooy moom mooy borom xam bu siiw la Muhammad ibnu Muhammad ibnu ibnu Abdurrahman ibnu Usayn al-Mahruf bil Xattaab muy borom xam bu mag a mag ci mazhabu imam Malik di faqih waaye di usul di suuf yi bokk yi bokk fànn yu bare bari nag mu géeju moom moo sara bi indi ci yu leer a leer mën nañu tudd benn sa benn saraam rek boo xam ne ñëpp xam nañ ko muy mawaahibul dalil fii sarxi muxtasari saqalil ñëpp xam nañ ko muy sara boo xam ne bu am solo la bind na it ci naxwu moom saarix bi di muhammad ibnu muhammad ibnu abdurahman ci ci ab benn téere bu siiw aussi bu ñuy wax mu tammimatul ajrumi ya téere boobu moom xam nañ ko fii ci Sénégal bu baax a baax rawatina fii Sénégal miin nañ ko moom moo saraara tax téere bii tudd nazmu nawairi risalata ibnu xaasin def ko mu saraa ko tuddee ko taxriirul maxaala fii sarxi rajasi ibnu xafi muy bind na it téere yu am solo xam naa dañuy yem foofu ci tarjama ji rek daal di dugg ci téere bi commencé tuuti rek bu ko defee boo lëggee incha allah bu ñu ñëwee dugg ci téere bi ibnu xazi mi ngi commencé ni xaala ibnu xazi wasmuhu muhammadu allahu rabbi alkarimi ahmadu مصليا على النبي المجتبى وآله وتابع النجبة وأستعين الله في مقاله تحوي نظائر من الرسالة فمشكلاتها وجوب الطهر للاستعادة ووقت الفجر وفعل بان ثم جعل العد ورتب المولى ومحنى العد ووسم سبعة مع الولاء لأقعد العساب والنساء قال وحن ابن غازي ibnu xaafis te turam wasmuhu muhammad turam mooy muhammad allahu rabbi alkarimi ahmad maa ngi sant yàlla mu tedd mi musalliyan mbir may aji julli ala nabi ci yonante bi al mujtaba kari ku ñu tànn wa alihi ak ñooñu wa taabihin nujaba ibnu xaafis ni ne wa astahinu maa ngi sàkk dimbali ko allahu yàlla fii maxaala ci def benn maxaala boo xam ni tax mi dana làq na zairam ay ndend min a risaala ci téere bi ñuy wax risaala لم ينجك انا كريم ينجك تدنك مشكلات الرساله من فمشكلاتها وجوب الطهر للاستعادة ووقت الفجر فمشكلاتها مشكلات الرساله بوكنا تي لا بروم رساله ني وجوب الطهر داي وار تي سانغو للاستعادة نيال دم الاستعادة بوكنا تي مشكله بي نجك تي رساله ان دنا تدنا جورم نيتي مشكله يو خامني دنا كو واي تي واي خاينا بروم سراوي دنا اندي وات يلين مشكله يو خامني ibnu xaafir tudd ko waaye xëy na bu fekkee jar na leeral insha allah dinañ ko leeral mu ni fa muskilaatuha muskilaatu risala wujubu taxri toxri bokk na ca la ñuy wax ni waru sangu lil istiaara te ñeen dammul istiaara boo jàngee risala da nga fekk borom risala di wax ni wa amma dammul istiaarati fa yajibu minhu lwuduu wa yastahabu laha wa salisul bawli an yatawadda li kulli salaatin boo mu yaari wax nak ca buntu ba nga xamni moy mooy mujibaatul xusli mu ni mu ni aw in mu ni aw inqitaau dammul aybi aw il istiaada foofu borom risaala dafa wax ni foofu yajibul xuslu damul istiaada bu fekke da dog sangu da cey war loolu nak muskila la bo xamni borom xam-xam yi nee nañ li siiw ci madhhabu imam Maalik nag mooy dammul istiaada moom waaw nak borom risala dañ fa amma dammul istiaada fa yajibul wudu wa yustahabbu al dèjà loolu rek muskila la المشكلة في بنجكمي إيه؟ ووسك الإشكال فيها أنه خال أولا يجب منه الوضوء ثم خال يستعب والشيء لا يكون واجبا ومستعبا هم قالوا له منتنك دون واجب بنو المستعب لولا مستعب التي مشكلة في الرسالة li nga xam ne nag moom la ñu leeral ko ci wolof mooy deret jor ngeel lañ koy wax ci wolof mooy deret joo xam day ñëw te feebar waral ko waaye du dammul aydu du dammul nifaas borom risaala nag dafa wax ci risaala ni bu dogee ci mujibaatul xusli dafa wax ni bu fekkee dagg na day waral sangu loolu nag muskila la li gën a wóor te siiw ci mazhab bi nag mooy deret jooja bu dogee li ñuy def rek mooy sopp nañ mu sangu te sopp gi sax dafa am ay martaba wa taaratan yakunu inqitaahu aksaru min idyaanihi dammul istihaara léeg-léeg li muy ñëw li muy dog day gën a bari li muy ñëw bu fekkee ne nag li muy dog day gën a war li muy ñëw dañuy sopp rek sop rek moo cay am wa taaratan yakunu iryaanuhu wa inxitaahu fa fil wujub bu fekkee ne léeg-léeg bu fekkee ne nag ñëw gi ak dog gi ñoo tolloo rek dañuy sopp rek léegi sopp sopp dong lay doon dootul àgg ci war bu fekkee ne nag dañoo yemoo li muy ñëw te fan yi muy ñëw ak fan yi muy dog rek ñoo yem léegi boo boobaa sax dootuñu ko sopp bu boobaa dootuñu ko sopp dootul war yaay xool nag boo ko mënee dafa ko mënul bàyyi kon da isaan daal li gën a wóor mooy sangu du ca war loolu benn muskila la mu teg ca wa waxtul fajri borom risaala boo demee ci risaala da ngay fekk mu ni wa waxtul fajri boo demee ci borom risaala da ngay fekk wa yusuri bihi ila xawlihi fi baabi awxaadi salaati wa asmaiha fi waxti salaati subhi borom risaala dane fa awalu waxtiha insidaaul fajri al muqtaridi في أقصى المسيح ذاهبا من القبلة إلى الدبر خبلة مملنا بودي كي واحد جوجو داي ملنا كون خبلة لفا أم جناو أم كرم بودي ما يتي في ميجان غلي إباب أخر الصلاة وأسماء هذا نفس أول وقتها جل بين وقت سوى إنسداء الفجر المعتبد بالدياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى دبر الخبلة مملنا كون خبلة لفا أم جناو أم كرم تدير الحقيقة دي مولنون kon loolu borom xam yi jàpp ni loolu muskila la ci risaala xay na mën naa leeral waaye wajul iskaal bi nag mooy li mu wax ni mina duburil xiblati loolu nag ñu ni xibla moom amul kanam a ginnaaw loolu kon lenn la ci loo xam ni borom xam yi jàpp nañ ni muskila la ci biir risaala waaye du teewul nag am na ci tontu yoo xam ni borom xam yi tontu nañ ko ba tey ñi nga xam ne ñooy ñu ne ah borom risaala li mu jublu ci loolu rek jubluwul ni xëy na xibla daa am ginnaaw waaye dafa wax ni boo to boo jublee xibla bu jant bi fenkee leer gi lay féete ginnaaw leer googu rek la jubloo wax xibla la jubloo wax waaye jublool ni xibla dafa am ginnaaw am kanam loolu ay tontu lañ ci yuñ ci tontu ci ñi nga xam ni dañoo wax ni loolu muskila la ci risaala wa fi'lu baanin summa ja'alul addi wa fi'lu baanin yaani wa yusiru ila xawlihi fi baabil iqaamati fi mas'alatil masbuuq boo demee ci risaala da ngay fekk mu ni وفعل الباني وفعله كفعل الباني المصلي وحده لول نك ميغي جونجوني في باب الاقامه بو يمي رساله في مساله المسبوح يعني ومن ادرك كو خامني جدنا ركعه الابرك فاعتذر فقد ادرك الجماعه كيغا خامني دا فك ني جولي مو داب مو داب بن ركعه داني جاب ني دافنا مبولم بو باري فال يقضي بحال السلام الامام في الخيام والسجود بروم رساله تك نك ففعله كفعل الباني المصلي وحده كوكو خامني مو داب moo fekk ñu julli mu def ci ab raka mel na ni daf na mbooloo mu ni mu ni fa fi'luhu jëfam de day mel ne ka fi'lil baani al musalli wahdahu loolu nag ñu ni iskaal la ndax fi'lul baani al musalli wahdahu wal muraadu bil baani al musalli wahdahu lu xam nga li ci borom risaala jublu mooy man salla ba'da salaatihi summa tabayyana lahu fasaadu rakaatin mimma salla aw aksara fa innahu yulqa mimma fasada al baani al musalli wahdahu mooy ki nga xam ni dafa julli day julli waaye ci biir julli gi bi mu jullee mu dem ba ci biir mu am benn rakka boo xam ne dafa yàqu ci biir julli kooku xam nga ni kon rakka bu fekkee rakka bi nga xam dafa yàqu day day sànni rakka ba yàqu rek mu indiwaat beneen moo xam bu dee ci rakkaam ñaareel la day sànni rakkaam ñaareel ba ñetteel ba mu nekkoon dikkoon di mu jàppe comme ñaareel mooy loolu mooy fi'lul baani al musalli wahdahu loolu nag borom risaala nuróole ko ki nga xam ne mooy fii masalatil masbuq man li nga xam ne mooy man adraka rak'atan fa kasara faqad adraka al jamaa ñaar yooyu nag bokkul ndax fi al-Albani al-musalli wa wahdahu koku day wàcc rakka bi mu nekkoon bi nga xam ne nag bu fekkee ci ci bu fekkee rakkaam ñaareel moo yàqu woon bi nga xam ne nag bi nga xam ne mooy rakkaam ñaar ñetteel bi mu nekkoon boobu lay jàppe ak ñaareel daal di continuer julli gi daal di continuer julli gi loolu muskila la yi nga xam ne borom xam ne sule nañ sulewe nañ ko fi borom isaara ne fa fi'luhu ka fi'lil baani al-musalli wa wahdahu beneen muskila bi nga xam ne moo ci toog mooy wa ma'na al addi ويثير إلى حوله في باب جامع الصلاة بوري ما رسالة في بنت باب جامع الصلاة في مسألة من خاني مولي من جعل عدد ما صلى كنا خمني لا ريري خمو اللي مجلي خمو اللي مولي مجلي من لم يدرك ما صلى أصلى ركعات أم أم رابعة بنى على اليقين خم قالوا بروم رسالة وهم بروم رسالة كنا خم دي جل يعني نيانا كنا خم دي جل بجي بنا خم بتي بير جل لغا أما تلقي كتير نعرى ci ñettee la nekk wala ci wala ci ñeente la nekk borom risaal dañu banaa alal yaqin léegi rek day day xool li nga xam ne moom la moom la gën a wala gën a wóor rek mu def ko bu fekkee ci ñaareel la day day werante ni ci ñaareel la wala ñetteel la na fas ne ci ci ñaareel la nekk moo gën a wóor wasalla ma shakka fihi wa ata bi rakiatin mu mu daal di julli la nga xam ne moom la sikk wa ata bi wa ata bi rabiatin lii la borom risaala wax léegi nag wajhul iskal mooy ata bi rabiatin loolu na dikkee na andi am ñental la borom risaala maxa xawlihi wa salla ma shak ma shakka fihi xam nga ñaar yooyu ànduñ nee na na andi na andi am ñeenteel ba noppi ni na julli la mu sikki fii na la mu sikki la mu la mu sikki la mu sikki sax ndax loola mën naa am du ñeenteel mën naa am ci ñaareel la man naa am ci ci ñetteel la loolu moo tax ñu ni kon loolu am na iskaal waaye loolu borom xam ne dañ koo tontu daal ni déedéet xeyna na escale bi borom xam ne dañ koon toon daani déet lii dafa nek li nga dafa nek dafa def li nga xam moy min babil atfi atfi tafsir li ñuy wax atfu tafsir ta lolu dagan na wa wasalla ma sakka fi lim ci jubru ala ala al umum fi kulli maskukin lépp lu muy sikk rek la ci jubru wa ata legi mu dikk bi rabi atin benen iskaal bi ci top nga xamni moy warata bil mawta moy nga xamni moy mooy khamisa bi moy juromel bi warutabil mawta ak toftale way deeya borom risala boo demee ci ba ci risala wa yusiru bihi ila xawlihi fi baabi salaasati aljanaais janais fi tartibil amwaati boo demee ci baabu salaatu ala aljanais borom risala day wax ni bu fekkee néew yi dañoo bari mu doon ay góor ak ay jigéen ak ay xale ni nga leen di toftale mooy wa in kaanu rijalan jaxala afdaluhum mimma yali al imam bu fekkee ay góor lañ dañuy xool ka ca gën ñu jiital ko mu ji mu tolloog imam وجعل من دونه النساء والصبيان خم لا بروم رسال واخ نيو تك تي نيتا توب وجعل من دونه النساء والصبيان لولو نك دا فا ملني كون بيرم بروم رسال داني بون بون تيغي غور نيغا خم ني كسي گن لا ني جيتال تي غور ني بون باري نيو تك تي جيجين ني لولو وتي اسكال بو سي نك نياري انام لا ان اول الكلام يقتضي انه لم يذكر الا حكم اتباع الرجال دا فا ملني اسكال بو سي نك موي دا فا mbolum goor ñu tuddu leen ndax goor ñi li ci ñëk moy goor ñi da ngay jital ñi ci gën waye goor ñu mag ña bo paré nga tek ci xalé yi boo paree dog caa teg jigéen ña te moom waxul loolu dafa wax ni rek wa in kanu rijalan jaala afdaluhum mimma yali al-imam wa jaala min dunihi an nisaa wa sibyaan loolu borom xam ni del li iskaal la li gëna wër moy li lii te mashhur te gëna siw moy da ngay jital goor ñi bo paré nga tek ci jigéen bo paré nga tek ci xalé yi ci goor ñi bo paré nga toog cee jig ñi loolu mooy iskaal bu njëkk bi borom xam yi wax loolu wa saani annahu xaddama nisaa ala sibyaan dafa jiital jigéen ñi ci góor ñi walay sabikum kazalika te atte bi nekkul noonu waaye nag teewul teewul ñi nga xam ne ñooy tontu dañoo tontu ni déedéet demewul noonu ndaxte dafa bëgg a tudd rek góor ñi dafa dafa bëgg a tudd ñu mag ñi ba noppi bu paree dokkee teg xale yi loolu la jublu moo tax te waaw gi tegtalewul tartib waaw gi mu wax tegtalewul tartibu moo tax ñu ne déedéet lim jublu rek dafa bëgg a tudd bu bëggee dafa bëgg a tudd ñu mag ñi ba noppi moo xam jigéen lañ moo xam ñu mën a doon bu paree mu doog a tudd boo bu paree mu doog a tudd xale yi ba ñi tonsu daal ni boole ci nag waaw waaw gi ne ci waaw gi ne ci wa in ka wa in kaanu rijalan jaxala afdaluhum mimma yali imam wa ja'ala min dunihi nisa wa sibyan waaw googu nee na laa laa tax tani tartib ñi tontu loolu lañ tontu waaye ibnu naaji nag moom dafa wax ni déedéet moom dafa dafa dox doxin ibnu ajiba rek ndax ibnu ajiba moom lim mu jàpp mooy bu fekkee ni góor lañ te jaam am ca jaam ña jigéen ña ñoo leen war a jiitu ñu doog taal teg góor ña waaye loolu nag li gën a wóor rek mooy lañ njëkk wax li gën a wóor rek mooy iskaal bi dafiy des kon li borom risaala waroon na wax rek mooy dañuy jiital ka ca gën góor ña góor ñëpp lañuy ñuy jiital bu mu paree doog taal teg jigéen ña loolu mooy li gën a wóor ibnu xaasin daal di tuddi muskila bu ñetteel bi mu ni waru tabil mawta ومعنى العد موي معنى عد لول نك ميغي جوندي سي بو ديمي سي رساله في في اواخر باب النكاح بروم رساله داني وتلاخه العبد تلاخان وعدة الأمد عيبان وكفارة العبد كالعر بخلاف معاني معاني, معاني العروض والتلاخي لولا بروم رسالة واخ دافا واخني وتلاخة العبد بو فكيني دانيو جام بني فصلة نيتي فصلة لا ني جام بودي نك بودي بودي بودي يد ادام لا ci jabéer bi ñaari mbërëg la comme gor ndax gor lañ koy jox la ñuy jox jaam ci ci atte rek ci xaaj ba la ñuy jox gor mu ne wa kafaaratul abdi nag kal orri bi xilaafi maana al urudi wa talaaxi iskaal bi nag foofu la nekk ndax bu ne wa kafaaratul abdi kal orri bi xilaafi maana al urudi wa talaaxi loolu iskaal la ndax gor ak jaam mënuñoo bokk nu ñuy kafaara ndax bu fekkee ni bu fekkee ni gor la gor moom xeeti kafaara yëpp mën na ko waaye jaam déedéet jaam mënuta def xeeti kafaara yëpp jaam bu dee ci kafaara jaam mënula leele te sangam àndu ci te it jaam mënula goreel ndax moom jaam la kon loolu muskil la bu fekkee dane wa kafaaratul abdi kal urri loolu ñu ni borom xam ne daal loolu iskaal bu mag la ndax jaam moom munta munta goreel ndax moom jaam la te léeg-léeg ko jaam daal benn xeetu kafaara dong la am boo xam ni am na liberté ngir jaari ca muy woor muy woor jaam woor dong la mën def bu ja sangam àndee kon loolu mooy muskilaawu juróom-ñetteel bi xam naa audio yaa ngi gudd dañuy yem foofu incha allahu rabbi ba dikkaat ñu continuer ci yeneen muskila yi ndax juróom-ñett juróom-benn la juróom-benn lañ limagun tey juróom-ñaar la bu pare ñu doog a jàll ci incha allahu rabbi wa sallallahu wa sallama ala alihi wa sahbihi wa sallam